Euh, dama nekk ak sama sama staff bi sama bureau bi ñoom ñëpp mi ngi présent nag mu ngi fii euh, ku ma jàkkaaroon ni mooy vice président de l'amicale des encadreurs kii mooy euh, sunu trésorier général mi ngi sapp mi ngi tudd Abdoulaye Abdoulaye Diallo kii mooy secrétaire général de l'amicale des encadreurs mi ngi tudd Pape Lui objectif euh, festival bi de euh, euh, festival dafa tënk que beneen que la là, pour boy, développer son cycle football bi football tant que mon contrôle passe ay passe eva relais ay conduite de loolu loolu mooy minimum ci football football bi d' mooy minimum bi mooy athlètes yi nga gis donc ngay gis fii yooyu ñooy minimum bi. Euh, ba actuellement nii te euh, te amical d' abord amical on est dix dix dix euh, école de football ñu Tamba plus su ñu fii ñu fekk benn Kousanaab dañaa bëgg créer benn école de football digne de son nom Ñaani parce que dañaa gis Kousanaar. dafa dem ba depuis ay 25 ans équipe bi mënuñu dem amuñu équipe championnat amuñu ki ñoo na kese la lañu basé le football bi c'est la base. c'est pour cela bu ñu ñëwee Kousanaar pour waxtana ak ñom pour ah franchement pare soo leen créé école de football day créer lu bëri parce que football bi légui du mag yi xale ñoo ko yor ñu ñëw ñi changé ak ñoom ñu def benn date mu ne date bi moy après entrée en sixième entrée en sixième bu mu passé mu tombé tabaski na si bon ku ah nous sommes responsables ñu poussons ko ba yalla def à y ko andi da ko 15 août tay bon fii euh, dafa composer ay école football bari euh ci bi moy école foot euh, c'est bi réveil bi euh, mouchid Eh, beneen bi jigi eh, beneen bi Gurel FC bon mooy mooy sunu sunu collaborateur sunu sunu partenaire mooy eh, Wili Ñaani mooy Koussanar fii yaa Koussanar yaa Misra yaa Succu Malem yaa Maram Ñaani yaa kii Kocaari kon amical ñu ko tënk bëri na ku nekk da ngay liggéey sa mais l'amical des encadreurs c'est une association la que vous bu nekk produit C'est parce que bi c'est lépp Le Le nga ans sa du fait, mais si vous rek dañuy am un loo C'est bon. bi am un ko nit ah, ko andi ni, amicale des encadreurs pour amicale rek ñu xam

bon di am vraiment contenté pour ñëw fii tey si de municipal bu Koussanar bon toog ak fii samay ay xarit ñoom euh, monsieur Diouf ñoom sama coach bon di am contenté trop di rencontrer aussi Smash TV di ñëw fii dans le cadre bon di parrainer euh, festival bi bi nga xamante ne euh, encadreur région de Tamba bi bon ñoom ñoo fi daje tey. di tagat xalé yi xalé yi ndaw yi bon ay U7 U9 U16 bon c'est cadre football mais en même temps c'est cadre éducation mën nañ ko waxé noonu bon vu contexte euh, contexte yi euh, corona bi aussi motax peut-être affaire bi bon mënul won romb ni quoi par rapport ak sonorisation bi et tout bon man en tant que parrain aussi bon déplacé on a ñëw indi bon ay jeux de maillot pour euh, xalé yi pour au moins que bon ñom tamit ñu japp ci bon. di kontaan quoi wax dëgg yàlla di kontaan si parrain lu mel nii parce que bon gis nañ ni football euh, région bi dafa xaw a dellu ginnaaw bu baax a baax te xam nañ ni Tamba am nay joueurs yu baax boo xoolee euh, Sénégal région Tamba ak Matam joueurs yu gën a baax mun nañ ne ñu ngi fi mais peut-être euh, ki leen di jàppale lañ amul mais bu ñu amee ki ngeen xamante ne bon mu ngi leen di gunge bon di leen di jàppale même bu dee équipement yi la bon di leen encourager dinañ jëm kanam bon en même temps aussi li may wax jeunes yi booy mooy kon ay xale lañ. bon buñu faté jang bi surtout jang bi avant tout quoi football bi baxna trop mais na and ak jang bi bon di contane aussi ci Abib bu bax Abib mom moy encadreur bi nek Sanar aussi nek sama cousin bon parrainé ma affaire bi ak euh, wa Tamba yeb ñi fi ñew bon di sante ñep dal vraiment di gërëm ñep bon di ñaan yalla affaire yi tambali na ci bismillahir rahmanir rahim yalla na jeex ci alhamdullilah alamin vraiment di contane trop merci beaucoup